salaamaaleykum mbokk téléspectateur Equivox yi tey rek fi ñu nekk nii mooy ñaaxaar euh, ñaaxaar di dëkk séeréer euh, di dëkk cosaan di dëkk culture te ñu seeti yi benn euh, artiste bu ñu naan Mariama Mariama Diouf di nekk woykatu làmb woykatu culture di def lu mucc ayib ci culture ba pare nekk jeune nekk xale bu ndaw bu kenn franchement mu nekk loo xam ne daal lu raar la ci woyu làmb moom daal leen seet tey dalal ko waxtaan ak ñoom mu xam tey lan la ñu indil. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di bëgg di leen ziar maa ngi leen di nuyu mbokk seetaan ku nekk sa tur sa de mooy xale puisque xale laay wax mooy xale bu yaru te bëgg li muy def gëm ko tamit. Mia ñaata at nga am. Mia 18 ans. man gis naa ay mag de aw loolu nan nga ko a liggéeyee ba mu mel ne ba mu nekk. loolu nag dafa nekk don. loolu yàlla moo ma ko may dama ko doon ci deret bi la moo tax nekkul lu ma lu ma lu ma lu ma jàng nekkul lu ma toppatoo nekkul loo xamante ne dama koy def te waruma koo def loolu loolu yàlla moo ma ko may. say parents ay wéykat leen. say parents ay wéykat leen. samay parents kii way nii sama yaay la moo ma jur man may taawam sam papa da doon tëgg ba nii yàlla jël ko mu génn àddina yàlla ko yàlla yërëm sama maam day way. sama mag bu jigéen day fecc sama tonton mooy tegal si mon seen man xam nga su ma wéyul dinaa toog waaw dama toog Dakar benn jour ma nekk ma tëdd ba ay 4 heures aññee ba pare bu ma tëddee ba ay 4 heures ma jóg jël sama téléphone def benn snap woy lamb nii sama premier woy góor gi sëñ woy ma woy ko teg ko statut ñu capture ko bi ma tëddee même pas 30 minutes. damay jot appel fu nekk ñu may félicité ne ma li nga def continuer puisque gis nañ ci sa avenir mën nga ko affaire yooyu noonu après ma jaaxle ma jógaat defaat beneen si sinap te gàtt ko statut après ñu may félicité ci suba sax ma gis ko YouTube ma gis mu commencé si ku nekk yor ko ñu may woo may jot appel fu nekk après ma ne waa man pourquoi pas ma continuer lii puisque nit ñaa ngi apprécié li may def vraiment te bëgg nañ ma ma nekk xale bu ndaw am âge bi bëgg ji naa ci continuer noonu la ñëwee ba nii nii loolu may sama way làmb sa yaay da la aw en général doom may awul yaay lan ma waral loolu mais loolu li ma la wax rek yàlla moo ma ko may yàlla bu a tegee dara da koy nangu yàlla bu la tegee dara da nga koy nangu moo tax tamit ma nangu ko gëm ko gëm na aussi mën naa ko bëgg naa ko te incha allah dinaa ci am ma bëgg bi nga commencé woy ak léegi ñaata at la man daaw laa commencé woy xëy na yàlla moo ma may lii na guitare laa doon woy ak musique làmb ji ba ma ko commencé ah, da ngay def guitare. ah da ma koy gërëm moom ma ci dugaloon. moom moo la jàngal guitare. non moom ma ci dugal dama ko mënoon bëgg ko di ko moom mu dugal ma ci ba nii ma ci doon sant yàlla bu baax a baax waa dama ko doon wayantu bu ma toogee nii su ma wayee nga xam ne kii li muy wax neex na ek am na talent par exemple laajte sama yaay damay pourquoi pas da way may woo engagé ñu juboo ma dem wayi làmb da nga am orchestre naa ci def carrière boo xamante ne ni dootul ma sa ci àddina puisque gëm naa ko bëgg naa ko te gëm naa ne aussi mën naa ko même su ma ko mënul aussi maa ngi siy jéem maa ngi sant yàlla bu bëgg naa sori aussi. instant bi commencé nga lekk sa xaalis ci musique wala commencé nga lekk xaalis. maa ngi sant yàlla daal maa ngi sant yàlla maa ngi maa ngi sant. di sant sama waa fan si club dooleel Mia national dañ maa bëgg te yàlla rek yàlla rek yemalewuñ ak dara kii di laa sub Siki Coor Pape laa sub Abou Cheikh Ndiaye Badji Sandaga Pape Elimane Keba Paate Papa Ndiaye Serigne Dam John Bao ñoo su ma limee damay juum dañ maa bëgg te yàlla rek tax di dégg lu nekk biir ñaaxaar xam nga dëkk fenn ba pare ñu bëgg la fa dafa xaw a métti mais fii dama fee dëkk ñu bëgg ma boolewuñ ma ak dara bëgg ma te yàlla rek tax ba tey jii moo waral bés ñu organiser ma sargal yaa national dama cee am kontaan bilaay sama ciy wax sama xol bi day fees c'est la première fois lan ngay wax ci waa Equivox ak Badou bu ñu ñu jógee ba Dakar Badou ak ñoom ñoo ñu waa Equivox aw ma seen lu ma bëgg wooy wax ma ko dama cee am kontaan bu rëy aw ma seen fay yàlla moo leen di fay ay borom baax ngeen vraiment li ngeen di def aussi baax na ci baax na ci réew mi quoi aw ma seen fay sama fan si mooy que ne nañ ma xaar ci beneen ci beneen phénomène ci beneen kii boo xamante ne nii dinaa fa génne mu neex leen parce que xam naa li ñu bëgg et que mën naa ko je suis capable de la faire et que dinaa ko def Oh, xanaa Mariama nekk koo xamante ne nag xanaa dafa ne xale yu góor yi ñu defal ko programme ñu defal ko programme ne dañ koy tëggal làmb na loolu laa xam ci loolu. boo gisee sa doom di way sa doom di way ñëpp di daw di daw topp ci moom di ko yuuxu di kontaan lan la lay def yow. xanaa sant yàlla rek sant yàlla bu baax waaw ndax booy woy ba sa doom di ñëw di woy da ngay da ngaa war a sant yàlla. en tant que yaayam da koy ngay awul sa doom man tamit nit ñi dañuy gis yaay mooy woy doom ji nga awul loolu lan nga ñu ci mën a wax. waa dafa moom bi rek. dafa moom bés bi ndax euh, may borom yoon bi waaye moom dafa moom bés bi moo tax mu ñëw dugg si mu woy ma awu ko loolu dara daa moom bés bi moo tax daa nekk borom bés bi. des fois moom yow da ngay woy moom mu lay awu. waaw man damay woy mu di ma awu ñun ñëpp samay woykat lañu damay woy mu di ma awu. lan ko lan yan conseil nga koy jox ci carrière am lan nga koy wax ci carrière xanaa di ko wax rek toppatool fans yi respecté mag ñi jubóol ak xale yi ndax aar moom daa yàggul te daa yaatu ki boo nekkee ak ay mbooloo topp la da yaatu gore man de nee naa ko man sama carrière léegi mu jeex parce que dinaa léegi du ma mag nag waaye comme mu nga ci damay dem puus la bi ñu kii dama moom na nee ko xoolal ci man man aw ma mosuma am benn problème waaw groupe bi maa ko moom waaye aw ma benn problème Mariama moom passe partout day rap day day woy musique day woy guitare waaye guitare yi nag guitare yi ñoo métti da woy guitare di fecc guitare xam nga ma ne ko léegi da ngay bàyyi loolu nga ñëw ñu woy lamb parce que lamb ji moo gën a am daaw la dugg ci daaw rek la dugg ci lamb ji. bi nga toogee déglu day wéy nan la la def yow. xanaa kontaan rek ndax sama yaay day woy. boo ko boo ci yaay yi bañ seen doom déedéet ndax ñun suñu askan la ñu dañuy woy sama yaay day woy loolu tax sama bu ma sama doom woy rek fay na boor en tant yaay xam nga sa mën na woy wala mënul woy ah, <laughs> mën na woy defe naa de ah fan si nee na mën na woy de yow lan nga gis mën na wala mënul waaw mën na mu ngi jàng de dina baax de yàlla baax na mais des fois mu woy nga corrigé ko mu def erreur nga ko du noonu nii nga war a defee loolu am ndax maa ko ci jiitu te olof Njaay nee na ku a wax dëgg ko yàlla day dama koy corriger ba tey. lan nga ko gudd fan ak yaram rek boo guddee fan wér gu yaram ñàkkoo dara. e awa njaay e awa yoo njaay gari matam mariama juf nango gi ma ndokoro nga na wale juf e na xarañto na jom na Yaxya Joob a reef a ñigéey fa ñigéey soo leen ñu xoolee war ngeen xam ne ay gan lañ ay gan yoo xam ne dañ leen di expliquer lan moo ñu fi indi pour su ko defee ngeen mën a ànd ak dal fête bi continuer ci jàmm ñun Dakar lañ nekk ay jeunes lañ yoo xam ne dañoo créer benn télévision boo xam ne dafay daw si YouTube bi ñu di ko tuddee groupe Equivox TV ñu am benn label boo xam ne dafa bokk ci Equivox euh, ñu koy tuddee Vox Arena Vox Arena dafa dugg ci événement organiser ay lamb au niveau de Dakar ñun ñoo tëgg euh, combat Tyson 2 ak Franc ñun ñoo tëgg Garga 2 ak Mama ñun ñoo tëgg alliance Biram ak Caatu Ngéwél am na yeneen combat yoo xam ne war nañ si topp léegi nag ñun dañu gis Mariama Diaker nekk xale bu ndaw di liggéey ñun tamit ñu nekk ay xale di liggéey ñu ne nañ ànd ak moom nan lañ ko gisee dañoo toog Dakar di xool ci internet bi gis ay vidéo si YouTube biñ gisee vidéo yi ci YouTube ñu def ay recherche au niveau de l' internet ba gis benn chaîne télévision en ligne bu tudd Kobo Ngoy Kobo Ngoy mi ngi nekk Fimela ñu dugg ci internet bi vérifier numéro bi gis numéro téléphone ñooñu ñu woo leen biñ leen wooyee ñu jox ñu numéro Mariama Diakar man personnellement ma woo ko waxtaan ak moom mu jaral ma ma déplacé wu ñëw ba ñaaxaar dem këram waxtaan ak moom ne ko ñun dañu nekk ay ndaw nekk ci ay projet te bëgg nañ ànd ak moom ci projet yi bëgg aussi Sénégal xam ko bëgg aussi mu imposé ci milieu làmb ji loolu moo tax ñun ñu ñëw fii indi suñu télévision pour def reportage ñëpp xam nañ ne télévision pour nga déplacer ko c'est des centaines de mille nga koy fay ñun ñoo indi suñu oto indi suñ équipe technique indi suñu matériel pour ñëw couvrir événement bi ngir Sénégal xam ko mu mën a yegg fi nga xam ne ñoom Khady Diouf ak ñoom Maye Ndeb yeggoon nañ fa loolu lañ bëgg ci moom te loolu nag pour ñu réussir ko il foog que yéen ngeen jàppale ñu ngeen ànd ak dal fête bi mën a continuer ci jàmm pour image yi ñuy filmer dafa war a daw ci télévision Sénégal ak àdduna war ko seetaan donc bu leen ko yàq bu leen ko yàq ñun dañoo ñëw fii kenn fay ñu kenn joxuñu essence ñun ñoo ñëw ak suñu propre moyen war a jël événement bi dugal ko ci internet yéen waa Ñaaxar yëpp ngeen war a dem Equivox abonné ci chaine bi pour seetaan lu mel nii donc loolu vraiment ñu leen di ñaan encore une fois ngeen calme fet bi jàll ci normal loolu lañ leen di ñaan vraiment ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ñun nag on a beaucoup de projets yoo xam ne moom lañ bëgg a doxal am nañ ay programme concert am nañ ay programme événement yu jëm ci làmb ci région yi fépp te moom dañ ci bëgg a ànd ak moom donc moo tax ñu leen di ñaan rek ngeen ànd ak dal ñu leen di bu baax di leen gërëm jërëjëf maam Thierno. di bàyyi faalu promoteur yi simple sax wax. te comme aussi dugg ngeen sama dëkk mu rafet trop événement bi am muy Mariama tamit dëkk ak ñun ñu war ko mën a jàppale. parce que ci dëkk bële dëkk tamit yaayam li may wax du hasard bokk naa ci ñi ko invité def ak moom ma émission mu ñëw ndef lañ ma boole koog mbay kalo ma def fa émission. loolu lépp nag li may jaayante mooy lan dëkk bi ma dëkk ñu fexe mu dem ñu fexe mu avancé ci làmb li koy avancé loo lu mel nii yéen dañ leen ci gërëm parce que yéen ñëw aussi déplacé wu jege Dakar ñëw ba fii pour liggéey moom donc kon dañ naan gàcci ngalaama ci seen yoon. di gërëm suñu mbokk yu fi teew yëpp di gërëm aussi yéen tamit yéen waa télévision bi euh, gis nañ bi seen taxawaay ci programme bi Mariama Diaker bi vraiment initiative bu baax ngeen def ñu ngi ciy rafetlu li ngeen ci def déplacement bi ngeen ñëwee fii te kenn joxu leen déplacement yéen tamit ngeen ñëw bu ko fekkee bésu Mariama Diaker bi. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen groupe ak seen télé yal na ko yàlla yóbbu foo xam ne di ngeen di ñëpp ngeen am si jàmm ak salaam euh, di rafetlu lii nag bu baax a baax parce que Mariama dafa doon koo xam ne suñu nit la ñu dëkk fii ñaaxar fii mu doon artiste boo xam ne artiste bu ndaw la aussi moo gën a ndaw ci artistes yi waaye moom tamit aussi nit ku ne ak li la yàlla may rek ñun tamit ñu doon ay xale yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ euh, man mi man maa njëkk a organisé fans club bu Mariama Diaker mooy doon woy woyu làmb léegi moom muy ànd ak moom aussi tamit mu doon loo xam ne aussi tamit loolu vraiment ñu kontaan si bu baax a baax a aussi tamit bu ñu demee ba xam ne kii moom leer nañu moom dina dem après man maa ko kereel fans club fans club Mariama Diaker après ñun ñëpp ñu dox ci gars yi du ci yëngu ñu ci dëkk aussi tamit vraiment di remercier waa Ñaaxar parce que ñoom tamit jàpp nañ si bu baax a baax a baax di remercier autorité yi autorité xam ne ñoo fi nekk aussi tamit ñoom jàpp nañ si bu baax a baax a baax vraiment di rafetlu lii daal vraiment ñun daal kontaan nañ man sama xol dafa sedd ba fu mu toll nii mënu maa wax aussi tamit même di leen remercier bu baax a baax waaye kontaan naa bu baax